sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 mbokk yi ñu bokkal liggéey bu sell bi di ko ñaanal yàlla yàggal ko suñ kanam bu baax a baax di jëy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon xam naa tey ñu ñëw ci fatwa bi rek ci kàttan ak yàlla ak dimbalam di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dolli ñoo defal tawfiix bu baax a baax tey kon laaj bi ñu fi jëkk am rek muy laaj bu jóge ci soxna Fatma Ndiaye soxna Fatma ñoo ngi koy seer bu baax a baax di ko ndokkeel mu ngi dundal émission yi bu baax a baax a baax di ko jox ni yoon mu jotal ñu ko mboolem soxna yi ci biir liggéey bi rek yépp soxna si day laaj ne dafa am mbokk moo xam ne saa su julli daal bu demee ba ca bay war a sëlma day fàtte taaye day fàtte taaye muy laaj nag kon kooku nan la war a def waaw ab taayo moom ku ko fàtte boo ko fàttale ko bala ngay sëlmal dangay ngay taay rek doog a sëlmal waaye soo ko fàttee nag ba sëlmal euh, doog a fàttale ko ne yow ko taay woo maanaam da ngay sujjóot da ngay waxaat allahu akbar sujjóot ñaari sujjóot daal di taayawaat daal di sëlmal loolu daal mooy atteeb koo xam ne kii dafa fàtte taaya maanaam mën nañ ne dafa bàyyi taaya maanaam dafa wàññi kooku la ko yoon mooy euh, su bala muy sëlmal la war a taaye bu taay wut ba sëlmal euh, ba tey sujjóot bi du raw ndax euh, dafay ne sujjóotam xabla la war na doon maanaam daa war na sujjóot bala muy sëlmal waaye xam nga diggante boobu taaya ak sëlmal dañoo sësaloo fi mu koy fàttee day daal di sëlmal xam naa su ko defee bu sëlmalee ba pare nag doog a faral ko ne ah moom ko taayawut kon du tere suju boobu daal da koy sujjoot rek waaw da koy sujjoot yeneen laaj yi ci topp sëriñ mbay jaañ moo ko fi yónnee moom itam dafay laaj ne daal dañoo am ay mbooloo yoo xam ne dañuy dajale seen xaalis di ca dimbalante dimbalante bu ama am solo nag waaye nag ne ne mbooloo moomu dajaloo di dajale seen alal jooju di ci def lu baax di ci dimbalante daal dafa am kuréel yu ci bokk yoo xam ne ñii ay footballkat lañu maanaam ci wàllu football la ñuy yëngu waaye ñeneen ñi itam dañuy yëngu ci wàllu bëre te ne ne kuréel yooyu nga xam ne dañuy màcc ci euh, football ba ak bëre ba it léeg-léeg ñu dind ci alal yu ñuy dajale di ko jàppale ñoom ñooñee itam te ne ne léegi muy laaj ndax lu baax loolu ñu ci def tam bari lool ak it léeg-léeg ñu ji dimbali ñële te bu ñuy seet buñ delloo ci charia ñële waree su leen a jàppale ndax la ñuy def déggut ak sharia mu ne ndax dañuy continuer rek jëm lu baax lay ëpp ñuy continuer noonu rek di maasale di dimbali ñëpp walla boog dañuy bàyyi ndimbalante boobu ngir ñële nga xam ne dañoo màcc ca lee te faaw ñu dinante di jàppale waaw loolu moom liñ ko ci tontu rek mooy suñ bay jaañ yéen daal su ngeen mënee fexe ba wut mbooloo boo xam ne mii ah, dara yi caaxaani àdduna du ca ne dara du am ci am fopp du ca ne daal ngeen di dajale suñu alal di ca def lu baax loole ah, mooy la nga xam ne lii mooy li gën te mooy sharia maanaam mbooloo moom yéen da ngeen mbooloo te am na ca biir mbooloo ma jëmm yoo xam ne ñu ko ca Eh, yorewaat ca bànqaas yoo xam ne ci wàllu foola màcce te loolu sariyan lugu ko ñuy aajo ndimbal ca biir mbooloo moomee loolu moom sariya du ko nungu seen mbooloo moomu daal su ngeen mënta beru mu nekk mbooloo mu sell moo xam ne ni daray caaxaan yële du ca ne day mel ni bàyyi boobu la mbooloo te jéem a seeti meneen pexe moo mën a defe say ndimbal daal ak lu kuréel ga ndaw ndaw euh, dafay gën daal ndax yàlla dafa ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wala udwaan yàlla da leen na ngeen di dimbalante waaye dit bu ngeen di dimbalante na na doge na tege ci lu baax ak ak ragal yàlla waaye bu leen di dimbalante ci loo xam ne lii day indi ay bàkkaar ak ak noonoo gis nga alxuraan ni mu leeree xam nga ñàkk déggoo gu nga xam ne wax nga ne day feeñ ci biir léeg-léeg léegi li ko sabab rek mooy mbooloo mi dañoo doxu dëgg dëgg charia bu fekk ni mbooloo moo xam ne ni ci charia rek lañ ko teg ñoom ñëpp di ca dox kon euh, xëcc boobu ak xaw a déggu ñàkk a déggu boobu maanaam du ca am te yàlla moom li mu wax moom toujours day gën di leer rek di gën di firndéwu te yàlla dafay wax ne wa ma umiru illa li yaabudullaha seen lahu diina xunafaa ah, yàlla ne daal jullit ñi daal wala sax ñu ne doomu aadama yépp digaluñ leen lu dul ñu jaamu yàlla te jaamu yàlla googu nag maanaam ñu nekk ñoo xam ne ñu sellal yàlla seen diine ji ñu koy jaamoo la te diine moom fi mu ne ji ji ci yàlla nangu ngir nit ki mën a sellal ak jaamu mooy mu teg ko ci diiney islaam su ko defee lu mën di doon euh, su ca lenn loo xam ne lu juyoog diiney islaam rek su boobaa sellal nga day daal di des waaye tamit jub géem wax ne ngeen nekkuñu jub itam gis nga jub googee itam day daal di des kon lépp dafa war a teg ci sellal ak ak jub bu fekkee ne gis nga ko euh, ña nekk ca biir ñëpp dañoo jub di dund islaam kon ñàkk déggoo googu du ci am waaye déggoo ba mu ci amee it luñ ko pëccëxoo googu rek da ci daal di am te dañuy wax yàlla yonante bi sallallahu alayhi wasallam dafay wax ni inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban maanaam jël lu baax ak lu baaxut maanaam lu sharia bëgg ak lu sharia bëggu daal nga bëgg koo def boole leen ne danga cay def lu baax daal loolu moom sharia du ko nungu du ko nungu daal ñu mënee góorgóorlu daal fexe def mbooloo moo xam ne mii euh, ci sariya rek lay dund luñ ca dajale ñun luñ ca def ci lu baax moom day gën a tawfeex rek di gën a baax moo gën ñu wut mbooloo moo xam ne mii daal ñii dañoo nekk ci leneen loo xam ne dëpput ak sariya bu ko defee it ay jafe-jafe dong lay am te it gis nga lii muy wax ne wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuuran ab euh, aaya dafay waxaan ne am na ñoo xam ne ni la ñuy def day nekk lu baax lool fii ci àdduna waaye su àllaxira bañ tegal leen lañ leen ca war a feye mu rëy lool baax loolu am solo bañ am ca yaakaar yàlla ne maanaam ma daal di koy def nga euh, pënd daal di koy ëf bu daal di tasaaroo te yooyu yëpp la koy sabab mooy nit ki ba mu koy def fii ci àdduna maanaam tegugoon ci sharia yàlla taxutan mu koy def ndax nit ki moom lu muy def te yàlla tax rek day jéem loola mooy dëppoo lu ko sariya may waaye xam nga yële moom yaari xeet yële moomu wax dëgg sariya da koy tere nag fi mu ne ci islam ci bi bu baax a baax tey loolu nga wax ne même ay dañ ci dimbal ñu feebar di leen di jëndal ay ordonnance te fekk na ñaari kuréel yi ñu nga ca biir euh, seen la ñuy yëngutu dara di ca génn ñu koy dugal foofu yi yàlla dafay wax ne ah Seydina Muhammad dafay wax ne maa jaalallahu dawaa ummati fii muharramin Seydina Muhammad ci njàngale mu leer ma te gën a dëppook jamono bu baax tam dafa wax ne yàlla daal defut saafaraay sama xeet wi ci lenn loo xam ne lii lu aram la dafay bëgg wax ne daal sama xeet wi daal seen feebar moom maanaam waruñu ko fajoo ci lenn loo xam ne lii lu araam la loo xam ne lii sharia nungu ko su ko defee ci wàllu ñële ñaari kuréel yee ca des muy ñu yëngu ca euh, wàllu football ba ak ñi nga xam ne ñii dañuy bëre xaadimu rasul dafa wax ci nëx ju xadaa el ne dawlatul baatili saa wa dawlatu alxaqi ila saawa alxaqu thaabitun wa ama albaatil wa in ala fa zaahiqun wa saailun bu ko defee eh, lii may wax nii eh, comme ni sëñ Mbay Jaañ wax ne eh, dana war a bàyyi mbooloo mi walla nan la ñuy def dama ko bëgg a ne ko bu ñu bàyyi seen mbooloo moom waaye nañ ko organiser jéem koo soppi ba léegi nga xam ne ne ay caaxaan la maanaam moom ñu mën ko caa génne ndax léegi nga xam ne ne ay caaxaan la ne Xaadimu Rasuul dafa wax ne mbooloo moom lu mu bari bari te ay caaxaan ci lañ ne diir bu gàtt gàtt la yàq waaye dëgg moom lu mu tuuti tuuti ña ca nekk buñ ko gëmee day continuer ba keroog bis pénc daal di waxaat moom Xaadimu Rasuul ne dëgg moom luy sax la kenn mënu koo dindi ak nit yi yëwut luñ néew néew doole waaye nee ay caaxaan lu mu kowe kowe ak lu mu yàgg yàgg rek day naax day wàcc ci suuf kon su ko defee loolu daal buñ ko mënee defar daal organiser ko nos ko ci muy doon loo xam ne charia nangu ne lañ ca yëngatu lépp daal su boobaa daal def ko te yàlla rek tax bu boobaa loolu daal mooy gën a dal alxuraan te mooy gën a ak sharia beneen laajam bi mbay jaañ dafay laaj ki nga xam ne kii daa ñëw ci julli mbooloo gi ñu rawee ko ci ay rakaa te mu dem ba jege imam ja nekk ca sàppe sa jege imam ja imam ji dem ba mënatuloo àggale julli ga mu xocc ko moom moom mu ñëraw ci julli gi ngir mu mottuli julli ga nee googu julli nan lay man a demee loolu mën naa nekk wala déet ndax ne leen dañ leen a dal ba ñu am ci ay werante bi waaye loolu jërte werante maanaam loolu lu mën a nekk la nit ki mën nañ koo raw ci ak julli su imam bi demee ba mëntu la dem bay xëcc kenn ci ginnaawam ngir muy mottali julli googee bu tombeek mu xëcc ko moom moom loolu lu mën a nekk la moom mooy àggali julli ga nu muy def nag su boobaa dañu ne ko dañu naan moom moomu ñu moom moomu imam xëcc ngir mu mottali julli ga fekk ay rakkaa da ko raw ci julli ga masalan bu doon ñeenti rakka la ñu ne ñaari rakkaa yi da ko raw léegi moom bu ko imam xëccee day ànd ak ñooñu imam bi doon jiite li leen seen julli ga su ko defee su su seen ak julli matee ñoom fekk moom ñaari rakkaa lay doog am moom mii ak gën a julli ga da leen di junj ne leen toog leen bu leen sëlmalagul ndax waruñu koo jëkk a sëlmal su ko defee ñoom dañuy toog xaar ko mu mottali ak julleem léegi moom moomu su demee ba mottali julli maanaam ñaari ràkkaay yi ko rawal mu mottuli ko day daldi di sëlmal ñoom itam ñu doog a sëlmal noonu daal la war a demee kooku daal moom lu mën a nekk la mën naa àggale julli ga waaye day ànd ak ñee la ñu des ci julli ga ñu mottali ko ak moom fekk moom mu am ñaar rakka bu ko defee suñu matalee ñoom toog da leen di junj ne leen ñu ngir ñu toog xaar ko bañ a sëlmal suy àggalee moom itam ba mottali daal di sëlmal ñoom itam ñu doog a ànd ak moom sëlmal waaw loolu mën a nekk la beneen laaj bi ci topp mu dungom ñu ngi jëwri ju liggéey moo ko yónnee moom itam dafay laaj daal ak leeral ci ayab alxuraan bi nga xam ne bii mu ngi nekk ci biir kaamil bi ca suuratul xujuraat yi muy laaj daal luñ ci mën a def ci ak leeral muy yaa ayyuhan naasu yaa ayyuhan naasu innaa xalaqnaakum min dakarin wa unsaa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda allahi atqaakum inna allaha alimun xabir yàlla dafa ne yéen nit ñi man yàlla maa leen bind ci góor ak jigéen waaye bind googu ma bind dama leen a ngeen di ay xeet ak i giir waaye loolu la ba ma ko defee dama cee jur rek ngir ngeen mën a xamante mën a ràññeente ci seen biir waaye na ngeen xam ne nag ki gën a tedd ci yéen rek fa yàlla moom ah, mooy ki xam ne kii moo leen gën a ragal yàlla maanaam loolu daal mooy yàlla dañuy xamal ne yaa ayyuhan naas moom saa ko yàlla waxee ci alxuraanul karim ñëpp lay waxal maanaam doomu aadama yëpp lay waxal kenn na génn te gis nga lii mu boole nit ñi ñëpp soo ko déggee xam ne ko bokk muy innaa xalaqnaakum min doomu aadama maanaam nit ku mu mën a doon maanaam yàlla ne maa la bind ci diggante góor ak jigéen dégg ci loolu def naa ko nit nit ñëpp a ci bokk waaye tamit nii mu nu def di ay askan di ay xeet maanaam ci ni ñuy wutee ci ay wax ak i melokaani yaram lay wax maanaam ñii ñu ne ay séréer lañu ñii ay wolof lañu ñii ay pël lañu ñii ay no xeet yooyu rek loolu mu demee noonu mooy shu'uban wa qabaa'ila nee loolu dañ ko def ngir ñu ràññante ci suñu biir waaye nag cosaan yi yëpp daan na loo xam ne ñun ñëpp ci ñaari nit dong wala nu jóge maanaam muy aadama ak xawaa léegi loolu ñooñu nga xam ne xaj na ba ñuy ubbi seen loole ñuy def dañ faa jàng ay bi maanaam ak yemale goo xam ne gii doomu aadama yi mën nañ ko war nañ ko yemoo doon benn xam naa moom lañ ci doon jàngale moom lañ ci jublu ngir xam ne ñun ñëpp benn lañu maanaam kenn mën a gula gën kenn lu dul ni da ko gën a euh, gëm yàlla gën ko koo ragal dàq koo jaam ndax fii mii ngi yàq yàlla ngi wax ci biiraay bi ne ki gën a tedd daal ci yéen fa yàlla mooy ki nga xam ne kii moo leen gën a ragal kon daal li mën a jàppe nit ki ne moom la gën a moroom dal mooy mooy mu koo ragal yàlla dàq koo jaamu yàlla kon xam naa bokk ca sabab yàlla li tax ñu siiwal fa aaya boobu rek tasaare ko bëgg daal nit ñëpp doon benn xam ne ñun ci benn cosaan la jóge te ñaari nit a meññ ñépp muy aadama ak xawa muy góor ak jigéen tey gis nga cosaan loolu mooy dox ci wàllu doomu aadama ba keroo àdduna bi jeex su ko defee ci kaw loolu lay mu ne ki gën a tedd ci yéen fa yàlla mooy ki gën a ragal yàlla xaadim rasul da cee wax lu bare bare bari xaadim rasul dafay wax ne waalam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira xaadim rasul ne mbindee fi daal muy nit ñi lañuy rawantee mu ngi nekk ci xam-xamu diine islaam ak diine ne ci ñaari rekk daal foofu la rawante ba nekk foofu la gënante ba nekk te it nee ne wa bihima yafdulu man xat fadala te nee ne ci ñaar yooyu naman ku gënit ca ñaar yooyu nga gënee maanaam ki gën mooy ki nga xam ne kii moo ëpp xam-xamab diine islaam waaye tamit euh, nekk kuy jaamu yàlla nekk ku rafet euh, ku ragal yàlla waaye nekk ku ko mën a jaamu lool waaye laa binte saa bihi li xawmin fudala nee na du caage na nit ki askanoo ci ay gaa yoo xam ne dañ naan ñu baax lañu rek ñu ne kii ku baax la déedéet baax daal ñu ngi koy natt ci ragal yàlla ak jaamu ko kon bu ko defee nañu xam ne euh, li am anna asla kulli kulli naasi aadamu waxoo min tiini turaabi saalamu sëriñ bi ne loolu li tax ma ko na ngeen xam ne cosaanal doomu aadama nit ku mu mën doon mooy aadama te aadama ci euh, ban banab suuf la ko yàlla bind mu ne kon xam loolu bu baax a baax beneen laaj bi ci topp Fallou Gueye moo ko fi yónnee moom itam moom suñu Fallou Gueye ñoo ngi koy ziar na ne dafay gis ne daal nit maanaam soxna jigéen bu fi boroom kër jógee jógee boroom këram jógee ñaare li ci ëpp bu ñu koy may dañ koy def ci secret duñ ko siiwal daal masalan ndax dafay seen na ñu ci ëpp ay mag la ñu doon maanaam mag daal buñ koy maye lay wax muy laaj na ndax maye googu ñuy maye mag ñi dafa bokkut ak ni ñuy mayee gone xanaa wala déet waaw dañ ko naan diggante takk soxna moom ci charia moom mag ak gone ñoo ci yem charte yi nga xam ni maanaam mooy tax ñu mën mën a nungu charia nungu ne kii soxnaas kii la sart yooyu ñu doon ay gone ñu di leen maye ak ñu doon ay mag ñoo ca yem loolu yépp dafa war a daw ci diggante ñaari sëy yooyu bu ñu ciy def waaw kon su ko defee bu ñu gisee ne mag ñi moom bu ñu leen di mayeloo ñii daanaka duñ ko siiwal wala daa am fu ñu leen di war a maye déedéet fu ñu leen mayee fu ñu mën a maye gone rek mën nañ faa mayee mag waaye tam la ñuy gone moom lañu war a mayee mag maanaam buñ ci def benn njuumte ci ne maanaam euh, bu dee mag la maanaam nañuy maye gone ko waruñu ko naa def di en kay dañoo war a wut ay seede wut ñoo xam ne ñii ñoo leen di may ñu xam ne dagana nañ diggante ba waaye tamit lu mu doon doon mag maanaam ak cen moom da caa war a am tëkk ak sëy bu mu mën a doon bu dee ay gone lañu walla ay mag lañu bu ca ak cen amul rek sëy ba baaxul maanaam sëy ba daganu buñ ko defee te defuñu ca cen rek day arab maanaam dañuy njaalo bu ñu àndee moo xam mag la wala eh, ay ndaw lañu loolu nag lu jara yaata la di ko eh, xamle ndax nit ñi ñu ci baree bari buñ dee maye mag di ko may ku mag noonu ñaare wàll kooku day mel moom daanaka duñ ko ci sóoraale te cen gi moom bu amul rek baaxut ku ci mën a doon kon daal mag ñooñu dañ leen di bàyyi xel ci ne charte yi nga xam ni mooy wéral séeb ñaar ñi nga xam ne ay ndaw lañu mooy wéral eh, ñaar ñu mag ñooñu nga xam ne dañ leen di maye laaj bi ci topp suñu xaadim Jóob moom it moo ko fi yónnee mu ne ndax dina dagan cib jullit mu wut alal ju araam ba pare di ci liggéey nag léegi liggéey boo xam ne bi bu lew la ndax loolu mën naa nekk walla déet man ne mu misaal ne ki nga xam ne kii dafa sàcc ba am alal di ci liggéey léegi liggéey bu normal wala muy jaay lu mel ni sàngara loo xam ne daal charia da koo tere araamal ko mu di ci yëngu ba am ci alal léegi di ci liggéey liggéey bu baax lam cay amee lan la ak kera loolu dañ ko naan euh, nit ki muy jullit bi loolu charia mayu ko koo tere dafa araam ni nee na ab jullit la xam na ne sàcc moom charia da koo tere alal ju ñu amee ci ak sàcc mënta dagal leneen loo ca def itam moo xam da nga cay jaay wala danga nga cay bay wala danga nga cay sàmm ak jur loo ci amee ci bénéfice rek maanaam xamal ne lu araam la maanaam mënatu la baax kazalika lépp loo xam ne rek charia da koo tere ne lii ab jullit waru naa wute su la jullit ba wutee ba am alal joojee mënatu caa def loo xam ne lii maanaam mënatu caa amee loo xam ne li lu dagan ndax loolu su amoon kon sharia daanaka li muy tëral ci diggante araamal ak daganal daanaka boo waxul dootul am solo ndax bu sharia nangu woon ne yow kat bu la neexee nga dem di sàcc ba am alal léegi nag di dem jënd sa marchandise loo ci amee léegi eh, mu dagan kon day yomb loolu teyit su boobaa atte ba day di dagg su la noonu itam bu la neexee nga dem di jaay sàngara walla yu yooyu sariyaay tere rek nga jaay ko ba am ci alal léegi mën a tàmbali nag def lu dagan loolu sariya du ko def du ko nungu sariya daal dafa bëgg eh, yow li ngay sàkku nga teg ko ci anam goo xam ne gi moom la la sa diine may loo ci am mu dagan loola mën a continuer loo ci amati muy dagan bi mën a barke lu mel nii nag ki nga xam ne kii dafa doon ab yéefar nag moom rekk lañ ko may ci alal mooy ki nga xam ne kii moom dugg dan ci ci lislaam moom lu mu am ci alal ak nu mu mën a amee alal rek su duggee ci islaam noonu mu duggee ci lislaam euh, ñun lu nga ab jullit la léegi alal ja itam dañu koy daal di jàppe ne moom itam alal ju tuub la ju baax la lu mu ci liggéey ci loo xam ne lii lu sharia daga na la loolu moom day baax waaye ki nekk ab jullit ba noppi nag dem di def li sariya tere moom lu mu ci amee dafa araam te bu ci defee déet day araam comme loola rek yal na nu yàlla doon la defal taw bi yoxu bi jaay sëñ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ذاك يودا وهو ذاك يودا